alhamdulillahi alkarimi silminan ala istiqaali bi furudin wa sunan alhamdulillahi alkarimi silminan ala istiqaali bi furudin wa sunan sakartu li annahu qad saaxani li watanin bi nafa maaxani وغادني إلي بالتخلي من بعد ما خسب بي تخلي وجرني في إلى العلوم njabootug Cheikh Mouhamad Fadal Mbacké gi ci njiital ki nga xam ne mooy xalifaam di Serigne Abo Baraka ànd nañu ñoom ñëpp amal ziar bu mag ci kanamu xalif général de Mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou ci alxamis ji dëppoog le 16 juin 2022 ñu fekk sëriñ bi ci këram gi nga xam ne moom moo nekk Daarul Minan mbooleem njabootuk Cheikh Mouhamad Fadal gi ànd ak ndongo yi ñu jébbal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou addiye joo xam ne xayma nañ ko ci 236 millions de francs CFA mu nekk addiye yoo xam ne at mu jot njabootuk Cheikh Mouhamad Fadal Mbacké gi daañu dem ci ki fi nekkal Cheikhul Khadim jébbal ko seenub addiye jaayantewaat ak moom feddaliwaat seeni laxasaay mu nekk jotaay boo xam ne am na kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati nañ ko هذا وإني اليوم يا وآب خيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن سكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك mu tudd sunu jëwriñ muy sëriñ abul baraka moom Cheikh Mouhamadul Fadal ak turu jëwriñam sëriñ Basiiru Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Fadal ak turu ki nga xam ne moom la jox kàddu kër gi muy sëriñ Abdul Fatah ak rakkam yi nga xam ne ñoom la bokkal yëpp ak doomam yëpp ak mbooleem taalibe yëpp ak lenn ci njabootu suñu fàllu ñoo teew si nii tey ci sa kanam ànd ak mbégte lool mbégte moo xam ne xam nañ ne bala ñu ko amati dañoo amaat bés bu mel ni bii buñ dellusiwaat ci yow rek teewaat ndax na mu la ko waxe woon rek Mbàkke yow mbégteem kese nga. mbégteem kese nga. ku la jub rek. ku la jub rek. nga ree ko nga ree ko. mu ne ree nag moom. mbégte lañ ko xamee. kon nag Mbàkke bigaat nañ ci yow bu baax. sëriñ Abo ngi lay nuyu bu baax. mais mi ngi lay xamal ne. noo ngi feddali laxasaay. na ànd ak njabootu sëriñ Fallou gépp ak njabootu sëriñ Tuubaa yëpp. topp ci sa ginnaaw. di déglu say ndigal. waxtu wu ndigal ñëwee rek. fekk na ñu jekk bu yàgg. mi ngi mel ni ni koy waxee ne bu ñuy wax euh, wadd leen fekk na soccet jàttu ba toog ci tànkam rek. neen foofu rek lañ nekk ci yow de. mu ne kon nag nga na nga ñaanal nu. nii ñu la yéenee liggéeyale ci barkeb Serigne Touba sunu borom may nu def ko ni ñu ko bëggee. addiye ji nag xeeb nanu ko lool nag. lool nag sax waaye nag nga ñaanal nu ba bu nu jógee fii jaajuwaat rek. ba bu nu fi dikkaatee ni nu fi andi mu andi ñaaram ñu andi ñettam ndax am nañ yéene jë nga ñaanal nu rek nga ñaanal nu ci sa barke noo ngi ñaan ci sa barke boo nu ñaanalee ci sa barke li nu bëgg danañ ko am kon nag Mbàkke noo ngi niyeeti rek noo ngi am mbégte faw rek nga ñaanal njaboot gi yëpp njabootu sëñ Tuubaa yëpp ak jullit yëpp ñaan jàmm ci réew mi ñaan ko ci Afrique ñaan ko ci Europe ñaan ko ci fépp rek addina bépp rek ndax addina li muy rëy rëy yow mii yaay sëriñ Tuubaa kon nag yaa fi gën kon nangu yaa fi gën ku bañ yaa fi gën te boo ñaanee rek yàlla dana ñu dimbale ak jàmmam kon Mbàkke dimbale ñu ñaanal ñu ñaanal sëriñ Abo mii mu yàgg fi lool ndax yow rek la bëgg xoolul kenn yow rek lay déglu ci lépp nooy ñoo raxasaayu ci gannaawam di fas yéene la rek kon a Mbàkke noo ngi niyeeti rek sarax nu rek dimbale nu ñaanal nu ñu am lu ne gàññi rek ba saa yoo laajee rek ñu mën a ñoqi joxe nga ñaanal nu ak nekk fi ba saa yoo ñu liggéeyloo ñu mën a liggéey ba ñàq ndax loolu rek mooy yoon wi kon nag Mbàkke jërëjëf ñoo ngi jéggalu kat wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa waaw sëñ bi nee moom itam te lu muy wax waaye am na ci na mbégte moo xam te ne bii nee na leer na ko nii suñu mut laa waxee rek boo amaatee mbégte mi yéen a fi teewaat nii ngeen fi teewee rek. waaye dama ciy dëxëñ nag mel ni. nee daf yiy dëxëñ nag mel ni. li mu weesoo ak li jëm ci kanamam lépp sama aajo faju na ci yéen ci jotaay bii. ndax yitte ji jenn la muy sëriñ bi rek ba ma daataa agsi fii ci samay gëstu ak samay xalaat ak samay xalaat ak samay bëgg-bëgg ak sama sóobu laa jële woon ca loola mm, wax leen wax ne eh, njabootu sëriñ su suñuy jëggaani ak taalibe kër si yax Mouhamadul Fadal la ñuy dem ne loolu ba ma ko waxee du tey loolee rek ca laa nekk nii. loolee nekkoon ci man nag. ñooñu Cheikh Ahmadou Fadal teew fii. ñooñu Cheikh Ahmadou Fadal teew nii. ci sama diggante ñoom. sëriñ bi nekk ci bi nekk ci. nekk nekk nekk nekk ci sunu kanam. nekk ci sunu kanam. nu teewal ko nu teewal ko. sunu diggante ak sunu borom. loolu. man amatuma. man amatuma. lenn lu gën a. jébbale sama bopp. la sama kawari bopp yi. ba ci sama wu tànk fii. maa ngi koy gën a jébbal sëriñ maa ngi koy gën a jébbal sëriñ Tuubaa di ko seereel suñu borom mi nga xam ne mooy lépp kon nag alhamdulilahi rabil alamin sama xol sedd na guy sama xel dal na ratiix dal na ci sama kanam ci bu ma nekkatul ci bu ma nekkatul dal na ci sama xel dal na ci sama kanam dal na ci dal na sama kanam dal nañ sama yéen yëpp. ngir jotaay bii rek. lu rëy ci man lu ci man la. lu ma teewlu lu la. lu dal sama xel lu dal sama xel la. lu sedd sama xol la. kon dafa mel ni sama aajo faju kon dafa mel ni man sama aajo faju na. waaye loolu lépp dama koy fabaat nag. ni ma ko waxee woon léegi rek. gën a jébbale sama bopp gën a jébbalewaat sama bopp. ci sama lépp nag rek. sama lépp. maa ngi leen di seereel maa ngi leen di seereel ne maa ngi koy gën a jébbale di ko gën a jébbal Serigne Touba kon nag alhamdulilahi rabil alamin liggéey bii moom rek fi nekk moom rek a fi nekk leneen nekku fi liggéeyal Serigne Touba rek a fi ne moom fi nekk soxlawuñ dara it lu dul liggéeyal ko rek alhamdulilahi nag rabil alamin fa tabaarakallahu la ma waxoon la ma waxoon feeñal ngeen ko ci ci taxawaay bii. loolu man mi waxoon loolu. loolu man mi waxoon loola. gën na maa waxaat. gën na maa waxaat loolu. fa tabaarakallaahu liggéey bi bi ma ci accès. bi ñu tàmbalee bi ñu tàmbalee. moo wax ne nañ nekk ci liggéey bi. moo wax ne nañ nekk ci liggéey bi. bëgg ni ma bëgg waaye man ni ma bëgg ñu ko ni sama sama sama sama sama sama sama sama yittey bopp. sama yittey bopp. sama yitteelu bopp. sama yitteelu bopp. damaa bëgg waxtu wu ne. milliard nekk boo xam ne. milliard di nekk boo xam ne. milliard na fi na fi nekk boo xam ne. na fi milliard nekk boo xam ne. dafay fekk liggéey bi dox. dafay fekk liggéey bi dox rek. milliard bi moom lu mu néew néew. nekk lu ñu sukkandikoo bay fi. mu lëg te baa ngay dox. waaye milliard baa ngi nii di tege ci wetam. nee noonu rek laa jógee woon. nee léegi nag xam naa fi mu ne ne. wóor na ma ne. bu àndeeg lii fi nekk. ñetti milliards yi dana tegal. yoo xam ne liggéey baa ngay dox moom na mu war a doxee. mu nekk ci wetam rek mi ngi fi. ci liggéeyub Serigne Touba bi rek. weesu wut sëriñ bi. liggéey ak liggéey liggéey boppam bi ak liggéeyu bi nga xam ne mi ngi tàmbalee ci njabootam mi ngi tàmbalee ci njabootam mboolem bokki taalibe ak mboolem bokki taalibe yi mboolem yaakaar ñi ak sëñ Tuubaa ak mboolem ñi yaakaar sëñ Tuubaa ak mboolem ñi koy dégg ñëpp ñu ngi ci ci liggéey bi ñëpp ñu ngi liggéey baa ngi jëm ci ñoom waaye bu sémb yu tegee fee ba noppi li ci des lépp itam lu ci mat a def rek daan ko def ci loo xam ne dafa aju ci njaboot bi aju ci bokki taalibe yi aju ci lislaam bi ci jullit yi. ñi yaakaar néew ji doole ñi yaakaar sëñ Tuubaa. aju ci néew doole yaakaar sëñ Tuubaa. kilifa nga xam yaakaar nañ ñoom ñëpp dañoo bëgg liggéey bi ne lépp di dox nam war a doxee rek loolu nag mi ngi doxee noonu. loolu nag alhamdulilah rabbil alamin sëriñ bi rek la mi ngi ngi fi du fi jóg mukk moom rek noo fi nekk nu mu bëggee rek nu la ko borom di defee. kon nag suñu xel dal na. kon na suñu xel dal. suñu xel dal na ci bu baax. suñu xel dal na ci lu baax. suñu xel dal na ci luñ jëm. noo leen di sant. noo ngi leen di sant. di leen gërëm. di leen bëgge. te leen wétali ko. di di di di di sukkandiku ci yéen. di sukkandiku ci yéen. di ngeen xam ne kat. fii tol toll nii ci saayir. dañuy wax ne may seen kilifa. waaye man kat. yéen njabootu sëñ Tuubaa gii. génn rek ci moom. ñooñu kat. ñoo ñoom sama at jëmm ji. ñoo sama jëmm ji ñoo koy atte ñoom laa ko dénk. loolu le kon loolu le li koy firndeel nag. moo di ab taalibe rek laa. soxlawu maa doon dara. bu ànd ak bokki taalibe lu dul ab taalibe bu ànd ak bokki taalibeem. fas yéene liggéeyal Serigne Touba. taalibe bu ne nag. taalibe bu ne nag am na xemmemteefu. génne addiyaam di ko jox Serigne bi. man nag sama addiya. man nag sama addiya. yéen waa kër Serigne Touba yii. kilifa yi njabootu sëñ Tuubaa gi. nga xam ne ñooy kilifa yi ne ci njabootu sëñ Tuubaa gi. gi nga xam ne wujj nañu sëñ Tuubaa. gi nga xam ne wujj nañu sëñ Tuubaa seen njaboot ne fi. samay addiya samay addiya yéen ñii laa koy jox kon sama jëmm ji yéen a yor atte bi kat li ma leen yilife ci saayir ni ngeen ma yilife ci baatin kon nag Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jëf Mbacke jërëjëf yàlla na fi yàgg te wér sëriñ bi nee na li nga wax déggees na ko waaye kat yow mii kat Mbàkke yaay sunub sëriñ nun kat ay taalibi lañ de nangul nan taalibi gi de nangul nan la nangul nu sunub taalibi loolu lañ bëgg nga defal na ko boo nu ko nangulee rek daañu texe tey ak ëllëg alhamdulilah rabbi nee nangu na ko bu baax a baax a baax a baax amiin alhamdulilah rabbi nee na ko te fas yéene koo ànd ci saayir ak ci xel ak i ruu alhamdulilah rabbil alamin ak ci jikko ak ci jëmm alhamdulilah lépp lépp danaa ko ànd ak yéen alhamdulilah rabbil danaa fab sama lépp doxañ ko ci parce que suñu diggante ak Serigne Touba ànd ko ak yéen alhamdulilah أيا لطيف يا كريم يا جليل آمل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا خل نجاة وفلاح ووفقنا لثواب وصلاح والدورنا بفعل ما أحببت والتكفنا عن فعل ما